naan fan say wiir leen yan fan say wiir yi. yàq leen xew pare ngeen pour ñu commencer show bi est ce que pare ngeen pour show bi commencer damay laaj ndax pare ngeen pour show bi commencer pare ngeen pour ñu yëngal pare ngeen pour ñu ambiance pare ngeen pour ñu jaxase fii pare ngeen pour Thiès am loo xam ni dañ naan l'histoire retiendra est ce que pare ngeen pour fàttaliku li xew fii biir Thiès est pare ngeen pour yeewu suba di nettali ñu ñëwul woon nii jooy. est-ce que pare ngeen pour laajaat ñu avant show samedi bii même bu dee dañuy dem Kaolack ñu ñëwaat fii pare ngeen pour ñu commencer dañuy compter ba 5 pour commencer pare ngeen ñu compter ba 5 pour commencer ñëppay compter ndoo 5. ñenn ñee compter ñeneen ci des compter wuñu te yaakaar naa ne spectacle bi mooy waaj a commencer fi ñu toll nii xam ngeen kan mooy bëgg ñëw. est que xam ngeen kii bëgg a ñëw xale bii di bëgg a ñëw fii la dëkk biir Thiès xale bii Thiès la juddoo xale bii Thiès la yaroo xale màggee xale bi dafay toj tey Thiès da koy yëngal tey ba yëngatu xale bi eh waay sax barki yàlla bokku ci yoonam nekkul ci programme bi. xam ngeen ni coow li coow li man la maay bàyyam li lépp man la tàccu leen bàyyi papa Ndiaye ay waay papa Ndiaye moo ngand maa ngi sa papa Ndiaye moom laa ngi tey gis laa ngi tey gis ay boo gaañoo papa Ndiaye maa fi gaañu gaañu mu neex Sénégal gépp jooy nga jooy fi jooy yu dul ne ma damaa bëgg sa poids man fi mu toll maa ngi rêvé teg sama bopp mu ñëw toog ci ma réer xam nga xanaa xam nga bi feebar Zérès feebar yaa toogoon ci dëndam bi ah, su ma wàccee di nga da ndey mbooloo mi Papa Ndiaye ci violence day dox ngeen dégg ko tey ak suba Ndeye Ndiaye kàkkat baa nga ne leen Alassane moom doo nga dem Sénégal. fotow ci ballon d'or bi ci Benzema tàccul leen ma ko ma gën a leen bye bye awa ana nga kaay aba aba yow da ngay fréquenté waykat yi ba sa déguisement yu waykat yi ngay sol kañ am jot suba nga sol ko def dara ju français ju xeeñ di wër di aba suñ deret fen la bàyyi aba ñun bëgg a dem Qatar il faut ma tàmmal sama yaram or sama daal yi ma sol ay or la 24 carats. lan mooy or 24 carats. or la 24 carats or. eh lii ay per la waxul dëgg ay per la waxul dëgg. aba bul bul abusé waaye ci liggéey liggéey tam. mais garaawul ah il faut la mais garaawul da nga maa iñaane. ah maa iñaane mais garaawul en tout cas kontaan nañu bu baax ci accueillir bi nga ñu accueillir biir Thiès. kontaan naa ci yow waaye Mouhamed Massaly nee na ma. boo yéegee te waxoo ah. li nga def fii. Ah. waaye Aba Mouhamed Massaly moo fi njëkk ci tur. kenn du moom Mouhamed Massaly. yàlla na sa jàpp yàlla. waxal ñu ko jërëjëf. alors kii bëgg a ñëw. c'est un fils de Thiès. c'est un Thiessois. ambianceur la. ku bëgg la. ku a ñëw. xulafa